wa na maahum alkitaaba wal miizaana li yaquuma annaasu bil qist dafa ne mooy suñu boroom yónni na ay yonant wàcc ay téere li yaquuma annaasu bil qist ndax nit ñi lépp lu ñuy samp nañ koo samp ci ak maandu lépp lu ñuy samp nañ ko samp ci maandu mu ne bihi qaamati samaawaat wal ard asamaan yeeg suuf yi mi ngi ko samp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 ak yeneen i tur kon alquran ci boppam al adl la tudd maandu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ay meloom al adlu allahuma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin al adl wa ala alihi wa sahbihi wa axrijni bi jaahihi min zulmati al jahl sooy mee ci muqaddamat xidma kon bu fekkee yàlla suñ borom turam mooy al adlu maandu quran ji bàyyi koo fi moom mu tudd al adlu maandu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 ci ak maandu ñu koy wax équilibre équilibre lu équilibré loo xam ne dara munta fanq moroom ma dara yàqul moroom ma lenn lu ci nekk suñ borom nam ko tollale fam ko teg noona la tollu tege foofa équilibre googu moo tax mu nekk fi booba ak léegi def liñ ko digal te dara yàqu fi suñ demee ba dara tàmbalee yàqu comme li ñuy wax jaww ji nga xam ne mu ngi tàmbalee am ay xottiku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 kooku mooy shari'a bi yàlla kooku mooy diine yàlla maandu mbir mu mu feeñ ak anam gum ko feeñe fa samma shar'ullah shari'a yàlla ma nga foofa dem wax ne fa ayu turuqin ustuxrija biha aladlu walqistu fa hiya min ad diin wépp yoon wu ñu mën a jëfandikoo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 borom bi mën na ko bàyyi mu de mën naa sax dunya àddina mën naa dem ndegam maandoo dox donte ak kéefar la àndal mën naa dox waaye tëddu wala tëdduumu maa zulmi wal islaami su du su lislaam taxaw waaye ak tooñ la ko booleel du dox du dem dem kon dafa mel ne suñu borom day ak xam ci doomi aadama moo ñu gëm ko te jaamu ko